man damay nit koo xamante ni bii li xale yi wax ciment laa benn yoon laay tooyee euh, benn yoon laay woowee euh, président Macky Sall dama leen di wax ni éternellement maa ngi koy sant sama xarit la sama wëllëre la sama leader la moom laa am tey moom laa am ëllëg bu ma manee lii ma man ginnaaw yàlla moom la bu ñu ma àndeek Amadou Ba fii tey jii président Macky Sall moo ñu ko joxoñ kon nag président Macky Sall fi mu ñu joxoñ dañ fay xool jàkk dañ koy téye bu dëgër bu wér liggéey fa liggéey boo xamante ni bii bu mucc ayib fexe ba nga xamante ni bii au soir du 24 mars kenn kenn du ñu ëppale score loolu lay sas waa meewaan meewaan wax dëgg yàlla Macky Sall son gouvernement état Sénégal dese lu ñu ko dese lu ñu dara lim ñu defal defalu ko ñu bari kon nag wax dëgg yàlla nit day delloo njukkal ku la defal lenn li war ngaa am ngor aussi delloo ko lam la defal mais meewaan président Macky dañoo war a jàpp ci Amadou Ba mi nga xamante ni moom lañu président makisal Sall joxoñ nañ ci jàpp ba bu ñuy joxe résultat yi ñu nekk ca kaw loolu laa leen di wax président Macky Sall lañ ñu joxoñ Benno Bokk Yaakaar lañ ñu joxoñ fexe leen ba ngeen jàpp ci ba ñu gagné largement au soir du 24 li ma leen di wax nag mbir mi wax dëgg yàlla am nañu bilan xeeb nañ ko waaye am nañu bilan mbir mi nag waxtaan la élage wax na ko euh, kenn du jël sa sa sa sa sa li nga gën a bëgg di ko dénk cuune di ko dénk koo xamante ni amul doole di ko dénk koo xamante ni bii munta yorum réew am réew kenn du ko caaxaane li ma bëgg a wax mooy projet yi yaatu na fanweeri dëkk ak benn commencé nañ ko ñii ña ca courant ba tali yaa nga poste de santé yaa nga fa ma di leen wax leen am na loo xam musiba la maa ngi koy wax sama mbokki eh, ndànk yi léegi di leen natt nañ tali bi nag ñu ngi ñëw di natt di wax ak yéen waaye xam leen ni bu yëf yi bu yëf yi yemee fii seen tali boobu fii juróomi at du ngeen ko gis ñi nga xam ne sampal nañu ay poto lampe ak ñi nga xamante ni bii aussi poto lampe yi mi ngi ñëw bu nguur gi continué wul loolu foofa lay yem donc ku nekk sa bopp ngay liggéeyal fi mu ne nii li tax ñu jàpp ci ñun euh, defe naa ni ñay bu lay xàll mbabal doom jaa tax buñ dee sonn di ŋarti ŋarti ci yëf yi sopp nañu Macky Sall bëgg nañu Amadou Ba waaye tamit bëgg nañu meewaan bëgg nañu sunu askan bëgg nañu askan wi tamit gis seen bopp ci yëf yi budget mili budget état Sénégal ñaata la set mille sept mille trois milliards virgule six nangam ñépp a ci bokk mais am na ci ñoo xam duñ ci am xam nga wax duñ ci am fañ koy joxe ak fañ koy séddale ak fañ koy laaje amuñu ku leen fa teewal yéen nag am ngeen ku leen fa teewal koo xamante ni bi day taxaw ak yéen wax la mu war a wax man maa taxaw fii euh, mbuur lampadaire solaire yi daal ni Amadou Ba ngi toog ministre yi ñëpp bare ngi toog ma ni leen yéen li ngeen di def fu ngeen ko teg yéen damay gis diggante maa ko wax diggante euh, euh, Tiwaawan ba Pire ngeen def ko ay làmp topp yi yéen ngeen bàyyi ñu ci lëndëm yi xanaa jinax yi ak kañe yi ngeen di niital loolu man bu ma toogee gars yi wax leen ko kooku nga xamante ne bi ñun amuñu lu ñu ragal bu fekkente ne bi défendre intérêt meewaan la fu ñu leen war a défendre dinañ leen défendre fu ñu leen war a jàppale dinañ leen jàppale message bi mooy nañ jàpp ba mu dëgër fal Amadou Ba sunu lépp dina yokk ci kàttanu yàlla message bi mooy nañ jàppale Amadou Ba ci la financement yi nekk ci la courant bi nekk ci la yoon yi nekk ci la poste de santé yi nekk ci la éducation nationale nekk ci la lépp loo xamante ne muy progrès ak ñu bëgg ko ci yoon woowu la nekk am na gaa yoo xamante ni mu musuñoo boo leen gisee seen photo jëmm sax day gis nit danga nit day gaaf dara mais am na ñoo xam boo leen gisee ak seen mbaxane yooyu ah du leen tudd ah ñu naan bu ñuy wax sax nga defee ni eh, jigéen ay wax ah ah non xëy bu ma jigéen ci parce que jigéen dafa am baatam góor am baatam loolu tax te góor gu baatu góor nga bëgg a yor loolu tax ma wax leen loolu waaye jigéen ñi moom yéenay sama lépp xam naa ni yéenay gagné élection yi yéen lañu faral yéen lañu àndal élection et dafa gàtt neuf jours la ku ci nekk sa dëkk yaa war a dugg ci biir gàññeel ko sa bopp waxal la nga war a wax wax ak sa jëkkër wax ak say goro wax ak say doom wax ak say jarbaat ni leen mbir mi sunu mbir la loolu laa ci amoon lu ma ciy wax ngeen di leen sant leen gërëm beneen bi mooy jox nañu moyens yoo xamante ne bii ba ngeen koo gisee fii kenn mësu koo gis yu moyen li ñu yor ci defe naa ni mbubu jigéen ñi mun leen koo ñëw mi ngi nii tege dama bëgg ñu jublu ci ay mbubb ay kasket am tàllalal ma flyers yi mën a maafe dafa gars yi dañuy yor ay këyit yu ndaw naan ko nii di ko di ko sànni waaye ñun lii la ñuy def boo bàyyee muraadi muraadi kier ah donc vraiment tu tuuti yaa ngi nii waaw defe naa sax góor ñaa ngi naan ma nañ leen ci jox ñu ñëw ci simis waaw xaw nag ñoom a ah, waaw kon nag mbir mango yeneen yëpp a ngi nii mm, affaire yi bari na boole nañ ci cinq millions juróomi millions mi ngi nii lépp nag indi naa ko teg naa ko fii bu lii jeexee bu soobee yàlla loo xamante ni mën nañ ko ci yokk nañ làmb suñu poos yokk ko ci waaw yemuñu ci lii donc lii nag nañ ci jublu ngeen seet jigéen ñi nan ngeen di xoole lii bu fekkente ni ku ne am na mbubb ku nekk lu ñu lay jox nga man koo ñawlu di ko sol ci grand mbubb ñii leneen ñii leneen ñii leneen donc mbir mi t-shirt yaa nga nële suñuy t-shirt nag suñuy t-shirt du t yi nga xamante ni bii 1000 francs lañ koy jëndee mais mayo mayo la waaw par rapport ak lii xam li duñu seen morom nag kuy dóor a man koy saaga loolu laa amoon lu ma ci asalaamaaleykum wa rahmatulah